bismillahi rahmaani rahim secret bi ñu leen di fas yéenee jox tey lii ko tax a jóg mooy ubbeeku bu yaatu lool ci wàllu wërsëg ki nga xam ne ay mbiram dafa dëgër lum yaakaar mu tas alal ju mu téye du xam fu mu jaar te muy jàmbaare lool di sabablu waaye mu sonn lool ay mbiram dëgër mu bëgg nag suñ borom ubbil ko ay buntam bu baax a baax a baax na def secret bi incha allah. bala ñoo tàmbale nag ñu ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullah di la nuyu ci nuyu bu nu yàlla boole nuyoo nag du farata dan ko sopp lool waaye fay nuyoo moom farata la ci jullit bi kon ñoo ngi yaakaar ngeen fay ñu nuyoo ci seeni commentaire te di leen ñaanal ci yitte jooju ngeen di def yàlla defal leen ci gudd fan ak wér gu yaram incha allah ndax fay nuyoo ci commentaire yitte la donte farata la ginnaaw loolu nag secret bi mi ngi ni inshallah allah da ngay japp ba sel tok ci barab bu lab julli ñaari rakka yo xamne ne nga ci yene ci waxtu wu dagana nafila bo noppee nga jang suratu duha jurom ñaar yon tek ci ya razaqu temir yon tek ci inna hadha la rizquna ma lahu min nafadin temirion. yon ba noppee nga ñaan sa soxla def ko ba mat ñetti fan taala di nga gis lu yéeme di nga gis lu yéeme di nga gis lu yéeme ci kàttanu yàlla ñu ngi lay ñaan nga partage vidéo bi ngir yeneen i mbokk mën cee jëriñu ndax ad dallu ala shay'in ka faa'ilihi danañ la bindal yiw ci partage bi ngeen koy partage ginnaaw loolu nag kaw xam ne daa bëgg leer lu ay mbiram def seet gu leer bu dëppoo ak sunna ak alquran nañu woo ci 77 335 14 14 incha allahu taala jaar yi ñuy joxe wërsëg bayre ak kaaraange ko tax a jóg am nañu itam garabu kër gi traitement éjaculation précoce képp ku ko soxla livraison bi gratuite la incha allah jërë ngeen jëf.